marhaban bikum njiiti réew bu bees tàq bu Sénégal muy jomaay fay fa yëkkati kàddoom yu njëkk ginnaaw buñ ko falee président niki démb yéene kaayu tey fa ñoo xëy di ñu nettali la gën a fës ci ay kàddoom yaw seetal leese ko yéene kaay fa ñoo xamal na jomaay fay fa jaajëfal njiiti réew mi Macky Sall ba pare fa sargal sargal gu mag Ousmane Sonko ba pare nag daal di wax liggéeyum fas yéene amal ci réewum Sénégal jër yéen a kaay na ko bokk na ca liggéey yooyu fexe ba juboole sénégalais yi nee na tamit fay xeex wàllu ger corruption ñu ne déetawaay fa bëgg a wàññi nee na dund gu cher gi lii de mooy chantier liggéey yi gën a mag ci jomaay wax le quotidien yéen a kaay ne jomaay fa porte projet waa Pastef yi fa koo ŋàbb war koo doxal bés bi yéen a kaay ne digg na senegale yi daal ne la woon moom fay wonneeku réew mi fay am coppite yëf yi fañ koy yemale jubbanti ko ba mu jub koj laas yéen a kaay moom kay loolu la waat indépendant yéen a kaay na ko chantier nag am na yu mu bëgg jiital ndax fa L'Éveil yéene kaay ne ndaw ñi nag jot nañ ci nguur gi info yéene kaay ne bokk na ci lim bëgg a jubbanti ci Sénégal mooy fexe sénégalais yi juboo suñu institution yi ñu gën koo dooleel wàññi njëgu dund gu cher gi turbine yéene kaay ne jomaay fay kay fa dalal xelu réewum France ndax moo tax Macron njiitu réew bu France fa félicité sargal jomaay fay ba pare na ko man faa noppi ngir liggéey ak yow dafaa lay ñaanal ndam en relief yéene kaay mel ni ku naan turbine ngaa wax jomaay lam wax mu dalal xel waa France yi xanaa fa ngaa fàtte ne jomaay mu njëkk wax askanu Sénégal ci boppam la njëkk dalal seen xel ndax lañ dégg mu wax fa dal seen xel la voix yéen a kaay mel ni courant lan hëy yéen ñoo nekk fi naan ay jomaay jomaay faa bëgg ngeen génn ci loolu fi mu nii dee leen ko wax président jomaay fay cër boobu la yelloo fi mu toll nii son excellence Bassirou jomaay jaaxaar fay le soleil yéen a kaay ñoom fa ñoo xëy wane photo président jomaay aay àdduna moo gudd tànk ndax li ñu def musta am ñoom waa le soleil waaye nag noonu la fi mu toll nii c'est le président de tous les sénégalais peuple yéen a kaay naka moo la dalal le regard mel ni courant li ma gën a neex ci président jomaay mooy fa suufeel ne moom fa yor réewum Sénégal góor na ko ci ak suufe donte fi mu toll nii nag tàmbale naa nekk nag ci melokaanu ab président ah buy génn takk der yee koy garde ah fi mu toll nii gis ko yomba tudde 24 heures yéen a kaay ne président Macky Sall fa félicité jaajëfal jomaay fay ci ndam li waaye nee na ndam lii nag démocratie bu Sénégal rek moo ci xam ndam dëgg-dëgg révélation yéen a kaay ne Ablaye Sylla moom it ndokkeel na jomaay te noppi na ngir liggéey ak moom turbine mu toll nii kay félicitation yi ndokkeel yi ñuy def président jomaay fay fa bëri ba mel ni yàlla taw Sénégal ba bitim fu nekk nit ñaa ngi koy ndokkeel rafet yéene kaay bi na bokk na ca Dumbuya soldaar ba nga xam ne moo jiite réewum Guinée Conakry fa wax ne fa yàkkamti liggéey ak jomaay Bougane Gueye Dany moom it ginnaaw bu mu ndokkalee jomaay fa wax ne fi mu toll ne jot na Sénégal gu bees ñu gis ko info yéene kaay ne Amadou Ba moom it tamit nangu na mbuq yi nga xam ne moom la ko jomaay fay mbuqi ba pare félicité ko libération mel ni ko daan ko Amadou Ba faamut pexe di dóor yi fa métti lim ko rawee fa bëri ba jéggi dayoo kon loolu nangu rek moo lay noppal a guddal mbayam lépp dem ak moom tut mu ray taxit tubaab yeeg waa bitim réew ak ñëpp a koy sargal ba pare tamit fa ñoo sargal rafetlu démocratie Sénégal président Diomaye Faye na leen askanu Sénégal ñoo tànn jëlee li fi nekkoon bëgg coppite ci seen réew mu rupture te incha faa koy def waaye nag président Diomaye Faye démb fa wax sénégalais na leen tey su ma mënee nekkee président bu Sénégal tey ndam li coalition Diomaye président am lu ji njaaga du kenn ku moy président Ousmane Sonko kon faa sonko la ndax ñu bëri xamuñ la waaye sonko moom kum tànn ba joxoñ ko doyloo ko rek sénégalais doyloo kooku ndax sénégalais yi sonko rek la topp ña ca bëri bokk enquête yéen kaay ne président Diomaye Faye fa wax ne du yàgg dara fay taxawal gouvernement boo xam ne ay sénégalais ñu nekk fii ak ñu nekk ci diaspora bi bitim réew fañ ciy bokk enquête yéen na waaye président Diomaye Faye tamit gërëm na félicité njiitiram Macky Sall ndax élection yi bu mënee nee na fa wax lu leer de gouvernement boobu ay góor ak jigéen yoo xam ne fa ñoo am valeur nekkul gouvernement Ousmane ñàpp de ak ministre yu bëree bëri déedéet gouvernement buy ñëw liggéey réew mi la libération mel ni ku naan ko président Diomaye liggéey rek moo la war amu droit yéen waa Pastef ak seen projet bii ngeen def benn njuumte Sénégal yi duñu leen ko baal ndax fa ñoo am ci yéen yaakaar ba mu jéggi dayoo xoolal ma ndam lu rafet lii nga ak Tiwaawan ak Mbuur cent quatre nga leen rawee bu dee Jurbel Bambey ak Mbàkke cent quatre ñu ne déetewaay mbooleem fu këru diine nekk Sénégal tariqa ya kilifa diine yi seen dëkk yépp jomaay moo fa gañe tut mu rey fa Amadou Ba yéene kaay bi ne ginnaaw Amadou Ba nag bépp candidat boo xam ne li nga am matu sa trente millions ya nga joxe woon ko delloo a fa ñoo bëri borom un trois yi l'observateur moom fa xëy di ñu nettali dund ak jaar jaaru président tal bi mu nekkee xale lam doon ñaan yàlla nekk ko bu màggee ak njàngam yépp yéen a kaay fa koo leeral ba sa njëkk yéen a fa wax ne jomaay fay fa doon journalier ñu koy fay ay journée deux mille ak trois mille ci tool yooyu nga xam ne fañ fay defar ay salaat ak mbayam dër mi daal ca malika bi magam bu góor génnee àdduna jafe-jafe yi jaar ba ni mu gisee aawam bi takk ko ak ñaareelam bi nga xam ne fa koo takk rek benn weer ci lañ ko jàppe yóbbu kaso source a ne jomaay fay dundam gi mën naa cee bindi téere waaye la ci yokkal lenn bi mu amee bac ñu ko mu jàngee Dakar bi mu demee amutoon fu mu nekk fa doon fanaan ci atelier laata muy am njaatige fac lettre lañ ko njëkk a orienté mu jógee fa dem géographie mujjee ji fac droit ca université bu ndakaaru Cheikh Anta Diop bañ ko doon fay bi mu nekkee ENA xaalis boobu la dajale dem xëccalee ko ndox seen waa dëkk boobu amuñ ndox muñ naan ak muñ toggee lépp ngir wàññi seen jafe-jafe ya laata muy réussir concours ENA bi tamit jéem naa nekk commissaire police sottiwut bi mu admee concours ENA bi ba pare admis waat concours magistrat yu bëri yoo xam ne fa ko xam hmm, waa ma ne ana kaw-kaw yi yéen a moomee te lii tax na képp ku juddoo ca xàll ba ñu lay wax kaw-kaw waratoo am complexe ci ñu ñu duppee ay boy town ndax am nañ président de la république bu juddoo ci xàll ba njaga ñaaw di hab séeréer buy wax muy feeñ ca làmmeñ wa te mu am ci mbégte lool nag kon nit far sax farfarlu góorgóorlu xam ful ak fayda mën ngaa nekk lu nekk ci sa réew ndax yàlla moom noppi na président Diomaye Faye mii daaw ci heure bii ku ko waxoon ne yaay nekk juróomeelu président bu Sénégal wallaay mu weddi la waaye gis nga yàlla def kon nag fañ koy ñaanal ndam te mu bañ a tas yaakaaru sénégalais